aoudubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata illa billahi alali azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokki seetaan axiru zaman dellu siwaat nañu di àndaat ak yéen ci beneen jataay ci axiru zaman di jaajëfal mbokki bàyyi xel yépp di ñaan yàlla defal leen tawfiix ak taysir weer wi nga xam ne moom la ñu dugg muy weeru tabaski ñu ko doon waxtaanee ci aaxiru zaman bi weesu ñu bàyyi xel fukki fan yi nga xam ne moom la ñu nekk xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa ne woon na amul lu nuy defal yàlla ci at mi lu gën nga defal ko yàlla ci weneen wala yeneeni bis yu dul ci bis yi loo mën defal yàlla ci weneen weer ci yeneeni bis defal ko yàlla ci bis yi moom moo gën defee ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ndax weer wi li mu dajale la yeneeni weer dajalewul weer wi mooy weeru aj màkka ci biir weer wi la ñuy aj màkka ci biir weer wi la bisu nekk ci biir weer wi la bisu tabaski nekk te bis yooyu noonu yépp bis la yoo xam ne bis yu màgg la fa yàlla ba tax na weer wi teru na ñu yokk ci sunuy góorlu suñuy julli suñuy woor suñuy naafila ak lu ci aju luñ ci man rekk ñu yokk ko ci xam ne ngëneelu kese la tabarakallahu tey nag ñu ngi waroon a am invité euh, waaye dafa mujj am ngànt xam naa ci dernière minute nekkoon ci réunion moo tax euh, ñëwul ñu waroon a waxtaan ak moom lu jëm ci wàllu série yi nga xam ne tey moo tasaaroo ci tele yi nga xam ne tey ñëpp gis nañ ne phénomène la boo xam ne bu doy waar la bu tasaaroo ci télé yi ñu waroon ci waxtaan gannaaw ñëwul nag te waxtu yu jot na dinaay faral di wax yenn mbokk yi ne leen balaa nit di engagé wu pour def benn émission di invité nit war na fexe ba am lu mu dajalee kas néew ba invité bu ñëwul dernière minute mu mën a wax ak ña koy ñay seetaan lu nu jëriñoo donte day soppitam loolu ñu daan wax nag ah alhamdulilah naa invité bi ñëwul waaye dana am lu ñu mën a waxtaanee ci lañ bëggoon a waxtaanee moom. dafay ñu jàppal ko ngant ba jëmmi jamono su jàppandi waatee rek ñu dalal ko ki ñu bëggoon a dalal ci biir milieu bi la nekk defe ñu bari xam nañ ko muy Lamarana li taxoon nag ñu bëgg koo dalal pour waxtaan ak moom dañu gis ne théâtre démb yi daan na ci bokk. dañu gis ne théâtre démb yi donte daan na am comédie waaye lu mu néew a kës néew daan na am ay leçon yuñ doon joxe doon ko jàngale moo tax ñu bëggoon ko dalal waxtaane théâtre démb ak théâtre tey lan moo tax coppeeku gu doy waar gi dugg ci confirmé woon nanu waaye ci dernière minute mu amoon ngànt ba réunion bi dafa yéex a pare daanaka balaa mu doon yegg si fii nii dana fekk mu guddi lool looloo waral ñu jox ko ngànt ba jëmi jamono su ko defee danañ waxtaan ci lu aju ci wàllu googu noonu le ci théâtre tey fii mu tollu ñu dem ba yegsi ci série yi léegi euh, daa mel ne mbotti nawet la théâtre yi mel ni mbottu mel nawet mel foo toll ngoox ngoox ni mbottu nawet yi mel léegi noonu la série yi mel léegi ah ku jóg rek am sa caméra ak sa micro wut say nit ñu dajaloo ne dañuy def série bu doon dañuy def série ngir yeete ngir jàngale d'accord lu mu bari bari baax na waaye série yoo xam ne bu ñëw gën a yées du dëppoog sunu diine du dëppook sunu culture danañ ci dikk incha allahu taala ci fàttali xam naa émission bi du gudd lool comme yi weesu ni mu daan guddee tënk lay doon rek ndax danañ ci dellusiwaat ci yeneen i waxtaan yu gën a yaatu lu jeetu ñuy jël thème bi pour waxtaanee ko junjoon nañ leen ci émission bi weesu ne danañu dalal mbokk yële nekk ca Ndingler ngir waxtaanee coow la fa amoon waaye gannaaw yàlla dogal na ci semaine bi ñu dégg ne am na saafara gu ci amandi ñu ne daanaka jaratu ko ndax buñ doon wax it wax pour mu am saafara moom moo ko waral gannaaw ak saafara am na ci ñu jaajëfal autorité yi nga xam ne nii jël nañ seeni responsabilité ngir jël suuf sa nga xam ne moom la ngóor seedi Babacar Ngom jëloon ci loxo baykat yi ba ñu toogoon <laughs> lu doyoon waar lu doyoon waar imagine la ay baykat yoo xam ne ay tool dong lañ am amuñuy bureau ñu dundee lu dul di tool nit ñëw mën a teg euh, loxo ci seen suuf ban dañoo naroon a toog ci nawet bi du ñu dem ci seen tool yi bay loolu catastrophe la kon bu demee ba sénégalais yëpp jóg def combat boobu mu nekkoon seen komba ba autorité yi jóg dox ci tànk jàmm ba li ci amandi amandi ci mm, nga xam ne nii baykat yi gis nañ ñu xëy delluwaat ci seeni tool ah falilaay alhamdu wa sukuru loolu rek moo taxoon ku ne man ak ñeneen ñu dul man doon wax ko defee nag a ah, wa in taudu rek na ut mm, indi nañ saafara yàlla na nekk saafara ba continuer mais bu jàngoro judduwaatee tamit incha allahu taala ñu delluwaat ca lañ nekkoon rek di ca wax ba keroog saafara di ci amaat ko defee loolu moo waral tey indi wuñ tem boobu ngir waxtaane ko ñeneen nañ ko jàppal idda moom it ba jëmi jamono indi thème bi nga xam ne nii actualité la tey foo tourné rek série yi ci télé yi ci internet bi waaye laataa loolu rek ñu ñaawlu benn vidéo boo xam ne fan yii tasaaroo na lool muy ndaw soosu nga xam ne ñu ngi ko wane aw nit jàpp ko ne daf doon sàcc ñu jël ko ci anam gu ñaaw googu nga xam ne moom lañu jëflanteeg moom te mu gi ñu ne ndaw si sax àndut ak xelam muy lu ñaaw a ñaaw loo xam ne nii ñu bari ci nun tàmm nañ ko léegi. jàpp nit rek toroxal ne dafa sàcc wala dafa nangam lu fi yàgg la nag Sénégal moom buñ ne sàcc rek ñu gàddu yat ak i xeer ak i móol waaye loolu noonu nag dañ ko war a dépasser fi mu toll nii ndax fi jamono toll bu njëkk daan jàpp ni dóor ko ngir ne dafa sàcc caméra amuloon ay téléphone yu ñuy filmer amuloon nit di ko gis fam daan yem la daan yem ñu ngi rappelé wu ci Saalum jamonoy ndaw dang daan gis sàcc buñ jàpp dóor ko ba diri yóbbu ci saat sànni mais loolu noonu la foofu la daan yem nettali rek nga ci mën a am waaye jamono jii ñu toll nii dañu war a changer même budul woon loolu nga xam ne bu njëkk ba sax normalu toon ñu koy def nit donte dafa sàcc am na fuñ ko war a jaarale bu dee dañuy àtte l'islam <laughs> ñu ne nañ dog loxoom buñ amee ay preuve te balaa ñoo dog loxo sàcc ci lislaam procédure bu gudd la euh, bu ñuy dogee loxo sàcc loolu taxu noo jóg moo tax duñ ci xuus waaye bu demee ba lu mel noonu waroon am l'islam muy euh, état mooy taxaw pour dog loxo sàcc boobu noonu le su demee ba àtte woowuñu lislaam euh, dafa am beneen tëralin ñu tëral am na nu ñu waxee ne sàcc bu sàccee noonu lañ ko war a def waaye pas yori xeer ki mool di dóor la woon démb bu demee nag ba nga xam ne jamono toll na fii mu toll nga xam ne léegi ci minute la ñuy filmer di wane war nañoo dindiwaat nag esprit bu bon boobu noonu le bu ñaaw boobu ci sunu xel dana bari lool lu muy faral di am waaye nag bu demee ba li ci mujj nii ci jigéen ci jigéen daan nañ gis góor lañ daan gis ñu wax ne sàcc na ñu dóor gaañ yu mel noonu mais jigéen même bu fekkoon la ñuy wax moo ko def am na neneen nuñ ko war a traité lu dul façon bii nga xam ne moom lañ ko doon traité jàpp jigéen yëkkati ay yéreem ay awraam nekk ci biti siggil xool jàpp ci boppam filmer ko wane kanamam loolu jëfu njaay xàll dëgg la jëfu bàyyi ma la mais nit ki ànd ak conscience am sax waru ko def ndaw si bi nga ko tiimee sa xel bu demoon ci sa rakk ju jigéen joo bokkal ndey ak baay wala sa mag ju jigéen joo bokkal ndey baay wala sa yaay wala sa tante mais doo ko def lu mel noonu te da nga waroon a jàpp ne ndaw soosu noonu la yaayu jàmbur la magu jàmbur la rakku jàmbur la sëru jàmbur la wala sax doomu jàmbur la nga jàppee ko ne sa doom ju jigéen est-ce que sa doom ju jigéen bu sàccoon sax mu bir ne sàcc na yow nga ñëw yem ca ndax da nga ko def lu mel noonu am déet tontu bi mooy déedéet doo ko ko def boo ko doon doori doo ko filmer di ko wane. mais lan nga am ban ban bànneex la nit di jëlee ci jël jigéen filmer ko wane kanamam euh, toroxal ko ne da koy dugal ci internet bi di ko bàkkoo naan ko ci internet bi nga jëm ci benn yére bu ñu wax ne moom la jël benn yére te nee nañ xel mu wére di moom moo ko gaar mu dugg ci bërëb boobu noonu leen ne noonu day jënd yére jël yére ba natt xam naa def ko sol di génn ak moom ñu ne sàcc la yuuxoo ko génnal génnuma xam nga nit ki nga xam ne nee nga dafa sàcc nga ne ko wuub sàccee génnal sama bureau génnuma nga yu nga génn ca biti woo nit ñi ne kaay leen walluma ñooñu ñëw jàpp kooku noonu lee di filmer que di toroxal comme niñ ko defee ñaaw na lool koy ñaawlu ndax diine ji ñu bokk muy lislaam diine la joo xam ne dafa wor maal mag mu màggat ndaw ak jigéen Anas ibn Malik nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu yebalaan ay soldaar ñu dem ci guerre di guerre yi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danaan leen ah attention ñett yi na ngeen leen moytu bu kenn laal mag mu magee na ngeen ko moytoo rey xale bu ndaw bu ko kenn rey jigéen bu ko kenn rey ñett ñi yonent bi dalaan wax naan bu leen ray ñett ñi mag xale jigéen mag xale jigéen yonent bi bokk na ci discours yi yu mujj yam daan dénkaane laataa muy génn àdduna mooy maa ngi leen di bàyyiloo xel jigéen ñi stawsu bi nisaa yi xayra ma tax na kuy jullit da nga war a wormaal jigéen da nga war a suturaal jigéen surtout suturaal te lii ñu def nii xaawi sutura dëgg-dëgg la muy lu ñaaw loo xam ne ñu ngi koy ñaawlu di e, ñaan yàlla jëf yu mel noonu bu mu amati mukk yàlla na ko yàlla def su ko defee nag bu dee lu aju ci wàllu série yi comme niñ ko waxee léegi bari na ba mel ni ay mbott nawet ngoox ngoox gi ngay dégg ci nawet ci mbott noonu la série yi mel léegi mosoon nañ ci def waxtaan ci jamono xawma série boobu Pod Marichou la xawma ñu waxoon ci ñu waxoon ci ginnaaw bi doonte ay comédien ñu ngi doon def seen yëfu comédie comédie ne dañ ñu jéem a tontu am na ñu ko doon jéem a naxarlu sax mën leen yéen nag fu mel ne xamu leen ki engagé wu di wax ci benn mbir su ma jugee ba wax ci benn mbir même bu nekkuloon ay comédiens yu naan daf may tontu ku dul comédie sax su may tontu du dama koy may mu tontu mu wax. comme ni nga xamee ne noonu laa engagé woo ngir wax ci li may dénoncé ku ma bëgg a dénoncé tamit bunt bi ubbeeku na pour nga dénoncé ma mais loolu noonu la waxoon nañ ci jamono yooyu noonu la mais nag léegi dafa gën a waat dafa gën a yaatuwaat te li indi loolu noonu yépp li ci jiitu mooy utum dërëm ndax série yi dafa nekk loo xam ne léegi sponsor yi ci la ñuy dugal seen xaalis télé yi ci la ñuy gisee seen bopp site internet yi seen YouTube yi ci la ñuy gisee seen bopp ndax sénégalais yi ñoom ñoo bindoo bëgg théâtre bëgg lu reelu bëgg yëfu comédie gannaaw dañoo gis ne sénégalais yi dañ ko bëgg nag euh, ci la ñu profité ku jug rek léegi ne série seri série série série su fekkoon dafa bari comme niñ ko waxee léegi ci ginnaaw bari waay gi mu yem ci def série donte yëf yu reelu la mais mu làmboo jàngale làmboo lu dul agressé sunu culture ak sunu diine problème amu ci mais léegi dañuy def série yoo xam ne dafay agressé sunu culture ak sunu diine muy lu doy doy waar. Euh, techniciens yi danañ ñu may rek ñu dégtal ñu benn vidéo boo wax defe naa Ibra italien moom moo ci exil euh, wax euh, benn rôle buñ ko doon bëgg a loo ci benn série ak la nga xam ne moom la ci wax ñu déglu ko dellusiwaat ci émission bi incha allah. dañ ma fi jël benn scénario euh, Tange liñ ma fay ci scénario boobu mhm. Tange walis boobu xaalis bi bari na torop ah bari na torop Tange loolu mën naa cee dund samay doom dund ci samay sët dund ci ba samay sëtaat dund ci parce que Tange hmm. xam nga lan lañ ma lan la ma scénario bi demandé uh-huh. dañ ma ne bon sa jabar day génnee ci biir néeg bi alors ñëw lal si jaadaam di julli bon fekk man maa ngi doon jàpp ci biir je suis un peu en retard sama jabar moo ma xaw a gën a njaxlaf mhm. mais bi ma génnee ñëw fekk ko mu kàbbar ba tàmbali damaa ñëw lal sama sijaada ci ginnaawam mhm. ànd ak moom mu jiite ma ma julli ba julli ki jeex mhm. alors mu door ma mu waar ma après wax ma itam ne ma del teel a jóg del nànkam nangam del nànkam nangam tange dëgg dëgg c'est pas musulman ça c'est extraordinaire gisuñu jigéen fu muy jiitee góor jigéen du jiite góor. lu tax ñu bëgg a teg téléfilm boobu scénario boobu. merci. c'était pour combattre l'islam. où le monde. où le monde est que artistes yi ñu ngi def attention. Non. parce que dafa am ñoo xam ne ñii xeex diine moo leen yëkkati. est-ce que je sais. xeex moo leen yëkkati. te ñëw nañ ci artistes yi. en tout cas di ko yëgal sama mbokk artistes yëpp. bii moom am naa ko noonu laa ko rejeté. te ña ko proposé wax ma ko sant ma ko c'est des sénégalais qui sont ici. ñoo xam ne kenn ku ci nekk mën naa laa yóbbu ba ca moom ne la mu ngi nii scénario baa ngi nii ak moom. mais vraiment parce que yow lan nga jiital mooy sa borom. ki leen jox alal jooju pour ñu jox la ko kooku moo leen may kooku nga jiital et c'est ça que le a besoin a besoin des croyants macha allah. xaalis boobu bu ma ko jëloon suba ma dem jëndi kër almadi su dee almadi moo gën ci kër yi may dégg dañ ne almadi gën a neex. suba ma dem corniche jënd fa n'importe quoi. suba ma dawal ay ay ay Rolls fii ay nit di la gis di la ñeenaan waxoo ah mais fekk yow boo dee bu la yàlla jàppee di nga xam ne root baaxul. dëgg dégg ngeen noonu mu ngi expliqué lu doy waar loo xam ne nii euh, làmboo na ay jàngat yu baree bari mooy kaay suyal nu benn rôle boo xam ne sa jabar mooy julli nga ñëw topp ci ginnaawam di julli euh, su sëlmalee après ndaw si ñëw di la waar. mu lànk ne loolu foyee diine la liñ ko ci proposé woon pour fay ko ko selon ay waxam alal ju bari la léegi loolu kon moo leen di wan ne li nekk ci ginnaaw série yi ba léegi waxaguñ ko am na lobi yoo xam ne ñu ngi yor seeni milliards pare pour yàq Sénégal yàq jikko yi foyee diine ji muy diine lislaam te bëgg koo jaaree ci série yi xam nga jigéen ci lislaam juy jiite góor amul ci lislaam euh, léegi série boo xam ne yaa ngi naan ku góor ki kaay sa jabar jiite la su paree waar la loolu noonu le moo xew ca farance imaam yu jigéen tey lu mel noonu buñ ko jaaralee ci série ñu gis image bi ni seetaan ko góor a ngi jiite jigéen mais mu tàmbalee dugg ci bopp yi ñu ngi togg kon fii ak dix ans Sénégal war a am imaam yu jigéen loolu nag nit ñi dañuy toog naan non non non moom Sénégal duñ fa mës a yegg fekk ay jamono boo ko waxoon France jullit ña fa nekk ne du fa mës a yegg yegg na fa tey Kahina Bahloul boo demee imaam la ju jigéen joo xam ne Paris ma nga fa nekk imaam di jiita ci juma. noonu mu amee noonu la amee yeneen mosquée yoo xam ne mosquée mixte lañ ko lañ ko tuddee góor ñeek jigéen ñi ñooy taxaw ci benn sàppe jigéen di leen jiite jigéen joo xam ne buy jiite sax muuru sax du ko def walla kol gu mata di lay jël teg ko ci bopp bi. léegi nag lu mel noonu le ci série yi lañ koy jaaral ndax euh, gis nga série sénégalais yi série yii moo koy tënk luxe sexe ak ñàkk kersa mu làmboo ñàkk kersa rek luxe euh, sexe ak ñàkk kersa moo nekk ci série sénégalaise yi tey euh, série boo seetaan ci série yi lan lañ lay wan kër gu rafet oto bu rafet téléphone bu seer mooy luxe tey ki toog di seetaan te nekk ci këru baraagam wala néeguy sengam sengam lan lañ def ci boppam mooy lii da nga ko war a am jigéen joo xam ne nii mi ngi yor oto di dawal yor appartement am di recevoir ay góor góor ñi ñooy fay appartement bi oto bi benn faram moo ko ko jox kado téléphone bu luxe bi mu yor benn faram moo ko ko jëndal léegi lan nañ def ci bopp xale yu jigéen yi mooy kat ku ci bëgg oto bu cher ku bëgg kër gu rafet ku bëgg nekk ci appartement buñ lay fayal dangay génn sa kër yaay ak sa kër baay dem uti far léegi gis nga loolu noonu le togg nañ ko ci série lu yàgg ba léegi ñu ngi koy réussir ba jigéen ñu ci bari léegi gisatuñu war a dëkk ci banlieue bi dëkkandoog seen yaay dëkkandoog seeni mag ak seeni rakk bu ñuy sombi seen sombi ñu sombi ko bu ñuy mbaxal seen mbaxal ñu mbaxal ko mais lan la ñu gis mooy dañu dem ci yenn quartier yu luxueux ut fa appartement boo xam ne nii salaire bu ñuy liggéey pour di ko fay mayu leen ko mais am na ay góor ay góor mbaraan yu leen koy fayal loolu noonu nag fan la jaare ci yenn série yi ci baree bari ay série jaar na fi yoo xam ne jigéen ña ca nekkoon amuñu benn liggéey bu dul seen appartement lañ yor di mbaraan heure bu nekk ñu présenté leen góor ñu ñëw ñu wan ko ne yow lañu bëgg dajale lu mat fukki far far bu nekk ak la ngay jëlee ci moom moo lay jox yëre ya ngay sol moo lay fayal sa appartement boobu nga xam ne nii moom ngay euh, nekk kon série yi boo ko jàngatee yooyoo ci nekk luxe ak mbirum sex ak euh, vulgaire vulgaire ku la gën a mën a wax wax ju bon gën la mën a wax wax ju ñaaw tey mi ngi ci série da ngay seetaan série nit saaga saaga te du ko def mu nekk dara ah. léegi nit ñi naan ah moom de mooy comédien bi nga xam ne moom a gën a neex ci comédien yi ki gën a vulgaire luxe sexe vulgaire loolu moo nekk ci ci série yi sëri yëpp boo ko tënkee li ñuy jàngale lu jëm ci mbirum farantu farantu am jëkkër am far am sa soxna amigel ñu baal ñu ci waxin wi mais loolooy nekk ci série yi mbirum sexe sexualité bi nekk ci série yi amatuñu ci kersa da nga gis koo xam ne nii rôle biñ ko jox ci série bi moo ko may mu mën a fóonanteeg ku alxayri doxul seen diggante bu njëkk loolu fan nga ko daan gis ci série tubaab yi nga daan gis ay tubaab yoo xam ne ni der bu weex la ñu yor làkk na sunu lakk di def sëri ba ci biir ñuy fóonante tey léegi sénégalais sénégalais ñooy nekk ci série jullit wala sax catholique la sunu xeet yi fi nekk wolof joolaa saraxule ma njaago pël say maam say maamaat di sénégalais mais benn rôle buñ lay fayee benn cent mille francs wala soixante quinze mille francs mu jaral la nga jaay sa diine jaay sa ngor ñàkk kersa di fóonanti am na série yu dox yu daw yoo xam ne da nga gis jigéen jor cigarette di tux da ngay gis jigéen ju yor cigarette di tux di jouer rôle bandi bandi ne bandi la ci série bi bandi góor goo xam ne bu njëkk ko daan tux sax nekkoon góor xanaa danga daan da ko daan nëbbu mais léegi defoon nañ ko mu nekk dara ci série la ñu nekk di tux série la ñu nekk di tux mais fan nga ko daan gisee góor euh, guy tux ñoo ko daan def ci série yu njëkk yi mais léegi jigéen ngay gis mu yor cigarette taal am na bu njëkk sax ñu ko daan jéem a essayé mais dañ daan camoufler noonu rek da ngay wane benn image mel ne mi ngi bëgg a tux ñu dagg ko mu mel ne tux na day yor cigarette bi mais du tux mais léegi da nga gis ko am day taal ñu koy wane mu teg ci cigarette bi ñu koy wane mu sex ñu koy wane mu muqi ñu koy wane mu sànni ñu koy wane. koo xam ne boo ko laajee yaay jullit baay jullit maam jullit maam mataar jullit mais ñàkk kersa ak benn role boo xam ne nii wër nañ ko ñàkk kersa ndax yenn rôle yi pour nga mën ko jouer da ngay ñàkk kersa wow bët ñeme bët. ñeme bët la mbokk ma Fallou Cissé doon wax ca rabam ba ak a ñeme bët tout waaw ak a ñeme bët am na ñoo xam ne ñeme bët moo mën a maye nga joué yenn rôle yi léegi nag tuux cigarette bi am na koo xam ne sàngara ci biir seri yi léegi am na benn seri bu doon tàmbali di jàll ci YouTube bi boo xam ne ànd saa ma jikko yi jógoon nañ ba dem porté ci plainte ci table procureur procureur ne sans ci plainte ba looloo ci mujj ba ñuy déposé ci plainte ba maa àndoon ak ñoom ba ñuy jëlee résultat ba ñu nañu ñu sensibiliser maa àndoon série bi li ci nekk mooy ay jigéen yuy fóonanti jigéen yuy fóonanti nekk ay lesbienne ay ay jigéen góor yuy fóonanti sexualité bi nga xam ne yooyu ay mbir la yoo xam ne yu ñuy togg la dafa am ay bandi bandi yu yor ay milliards nekk senegal wala ak biti senegal am ñu ñu lëkkalool biti senegal bëgg ak ngóor jigéen tasaaroo ci dëkk bi bëgg ak lesbienne tasaaroo ci dëkk bi mbëgg njaaloo tasaaroo ci dëkk bi léegi fan lañ ko mën a jaaree bu dee gis nañ ne sénégalais yi dañoo bëgg théâtre tey Makhtar Sarr bu defee benn émission du am dix mille vi nga def benn théâtre mu pare am cent mill vi mais pour ñu loo Makhtar Sarr benn combat mais pertement la ci ñoom mais kan la ñuy loo combat bi benn théâtre kat boo xam ne nii ca biir la muy jàllale sénégalais yu bari ñu ngi ci intéressé wu mag ak ndaw góor ak jigéen su ko defee kooku noonu la la ñuy fay mu jàllale leen message bi bëgg a ngeen foog ne col gu bon gu di gi ci jigéen ñi fan lañ ko jëlee fu dul ci télé yi <laughs> waxoon naa ko ca ba ma cee njëkk a wax nañ arriéraat année yi bu njëkk jigéen ñemewuloon a sol pantalon di romb ci marché bi xalaatu ko woon jigéen ñemewu ko woon mais bi série yi tàmbalee daw euh, ñi wane ay nit ñu weex ñuy sol ay pantalon sol ay zipu mu tasaaro ci la jigéenu sénégalais ñemee génn sénégalaise di di sol jippu ci mbedd yi te du ko déranger di sol pantalon te du ko déranger bu njëkk jigéen bu solaan pantalon euh, day jël sër teg ko ci kaw ñi daan jàngi école da ngay dem ba école dindi bi def ci sa biir saak booy ñibbiwaat jëlaat sër bi teg ko ci kaw mais ñemewoo sol euh, pantalon romb sa papa romb waa mbedd mi di dem. waxoon naa ko jamonoy marimar jamonoy mari marimar ak ñoom Luz Karari Talla defe naa jamono yooyu noonu le ci série yooyu noonu ci la yiwadi tàmbali di installé wu ci Sénégal ñi toog di seetaan télé bi ñu ci bari dégguñu li muy wax mais bëgg nañu série yooyu noonu comme niñ bëggee théâtre ni ñu bëggee théâtre lañ bëggee série yooyu noonu le mais boobu influence bi gaawutoon ndax kii li muy wax ñu ci bari dégguñu ko mais influence col gi dugg si na ndax bu demee ba benn série jeex da ngay gis da ngay dugg ci marché bi ñu naan ah léegi de euh, yëre lus kararita bi la ñuy jaay ñu tàmbalee génnee ay diw amoon na benn diw xaw ma sublimaçon bu ma fàttewul série yooyu noonu la da ngay dugg ci marché bi bu série bi daw laataa muy jeex defar nañ benn produit indi ko tàmbali koo jaay Sénégal ba jamonoy euh, série bu mujj ba xaw ma way dee la xaw ma te man way dee rek laa ko daan wooyee dama daan sol benn loxo bi série indo boobu noonu le neewoon nañ sax indi woon nañ ko fi Sénégal ba mu juróon fii coow buñ jógee ba mu tàmbalee sëri bi jeexagul lañ tàmbalee indi benn modd sol benn loxo modd boobu noonu le mi ngi fi woon ñu daan roy indo yi ñenn ñi nga xam ne xamuñu seen bopp mais série bi bi ñu dafa nekk modd boo xam ne ko gis mi ngi def benn loxo ndax lan way dee xaw ma way dee moo doon sol benn lox influence yooyu doon am ci seri yi nga xam ne benn ca tubaab la ñuy wax wala ci indo ñu traduire ko ci tubaab muy def benn influence ñu toog moom yàgg sénégalais yi jugal seen bopp nag na léegi influence bi dafa yéex ndax ñee la ñuy wax déggu leen ko ñu bari déggu leen tubaab léegi bàyyi leen ñu jël même seri tubaab ya di wax wolof nga xam ne nii bu dee téeméeri nit ñoo nekk Sénégal juróom-ñeent fukki ak topp yëpp dégg nañu ko ñuy wax léegi ci langue boobu noonu la ngeen di dégg ci la série yi tàmbalee ñëw bu ñëw ba jeex beneen ñëw épisode par épisode ba heure série yi jotee da ngay jaar ci mbedd yi doo gis kenn dëkk bi ne selaw ñëpp concentré wu di déglu série yooyu noonu li ah biñ demee ba gis ne sénégalais intéressé wu nañ ci après la série di tàmbalee indi benn effet li gën a doy waar leneen li nekk ci biir série yi gannaaw luxe bi ma xam ne maa ngi ko ci wax mooy ak sexe bi nga xam ne mi ngi ci vulgaire bi nga xam ne mi ngi ci mooy jaay sa bopp gi nekk ci série yi ndax xam ngeen yéen ñi seetaan aaxiru zaman ne jigéen ñu bari li tax ñu dugg ci série yi farantu la ndax xam ngeen loolu ñu bari sax xam nañu ko comprendre nañ ko da ngay gis koo xam ne nii da ngay tàmbali benn série premier épisode deux trois quatre cinq six day ñuul kuk mais balaa série bay jeex mu xees pecc ah y a quelque chose lu xew man ngeen a tudd série yéen ñiy seetaan ngeen ne série tel actrice actrice bi ci nekkoon série bi bi muy tàmbali dafa ñuuloon tey mi ngi xees waxuma kooku day jaay boppam de mais lan moo indi procédure bu gaaw boobu noonu leen mu xëy xeesal mais bu bu dul kooku nga xam ne ni joxoñ naa ko xel yi mën nañ am ku mu dem kon du ma ko ko adressé direct ndax xamaluma ko ko am naa ay preuve yu wér ne am na jigéen ñoo xam ne li leen dugal ci série yi pour jaay seen bopp la ndax dafa am góor ñu feebar ñu mel ne Makhtar Sarr li ñuy bañ a gis mooy jigéen ju génn télé ak noo ci génnee nekkal benn actrice nekkal benn chanteuse nekkal benn animatrice am nañ sa faiblesse danañ la jëndi sa numéro jéem a roof ngoro ci yow lu ne ñu defal la ko ngir rek ndamoo diw saa nga maam moog mooy génn dafa am ñu am noonu euh, ndaw si bokk ci série tel moom mooy génn ndaw si génn ci télé maa ngi génn wéykat tel moom mooy génn dafa am ñoo xam ne vis boobu noonu li la am léegi nag bi mu demee ba nga xam ne ñeen ñi bokk ci série dañ ciy génn rek am jëkkër man lim ñu bari ñu bokk ci série yooyu noonu li dañu ci série bi am jëkkër <laughs> boobu sax baax na <laughs> ñi ci dugg pare am jëkkër baax na mais am na ci ñoo xam ne nii ci la ñu nekk ba fii mu toll nii dajalay far yu dul jeex ñu leen di defal lu dul jeex nangu wuñoo sëy mais bi loolu nekkee benn phénomène nga xam ne ñenn ñi xam nañ seeni morom yoo xam ne génn ci série moo tax ñu ami far ñenn ñi am jëkkër mais ci la jaral ñenn ñi lu ne pour ñu bokk ci série yooyu noonu li mooy prostitution déguisée bi nga xam ne moom moo ci nekk ci biir série amoon na fi ay jamono scandale kenn koo xam ne nii moo doon euh, bind série yooyu noonu le ak di woo ñu ci bokk am jigéen ñoo xam ne pour mu proposer leen ñu bokk ci série yooyu noonu le am na fu muy jaarak ñoom ba jot a jigéen ñu ci baree bari ba dañoo xëy rek bi ko coow li jóg ba yegsi ci presse bi mais loolu ba léegi mi ngi nekk lu ñuy dund ci suuf am na jigéen ñoo xam ne jaral na leen joxe seen bopp ngir bokk ci série yi jaral na leen fay xaalis ngir bokk ci série yi ndax série yi commerce la maanaam yow la fait que bokk nga ci série tel pare yow yaay bañ góor ñi ñu ngi lay wër ndey joor ak càmmoñ loolu il faut ñu dénoncé ko jigéen ñu ci bari ñuy feeñ ci série yi cagatu ngeen baal ma ci wax ji moo leen ci dugal ngeen baal ma ci wax ji waxinu wolof la boo xam ne am na foo koy yóbbu mu ñàkk teggin mais wax la joo xam ne ju am teggin la ci biir wolof te cagatu sax baat bu rafet la ci wolof mais gàncetu mooy baat bu bon bi ñu ci bari gàncetu moom moo leen yóbbu ci yenn série yi xamees na ko loolu moo waral ci série yi rôle yi ñuy joué yëpp wane seen yaram aayu ci vulgaire ayu ci ñàkk kersa ayu ci ndax dañuy jaayu seri buñ rôle buñ leen jox ñu joué ko am na ñoo xam ne même buñ leen fayul benn dërëm ci benn seri pare nañu pour joué ko ndax liñ ciy gagné après seri bi après star ngay doon yow la gaañ yi wër dañu gis koo xam ne nii euh, ñi koy wër pour takk ko du jeex mais du sëy ndax bu sëyee jàpp ne loolu gàllankoor la wala bu sëyee ñaari weer ñett année un an mu tas delluwaat ci série yooyu noonu lépp mi ngi ci kon nga gis ban senegal ban Sénégal lañ bëgg a togg wala ban sénégalais lañ bëgg a togg résultat bi dana feeñ te mi ngi tàmbalee feeñ mooy léegi biñ demee na ba gis ne sénégalais yi ñu ngi ciy intéressé wu góor ak jigéen ah ci la yi ñëw na dugal ci seen loxo ñu bëgg a yàq diine ji ñi nga xam ne ñoo bëgg yàq suñuy mbatit da seetaan benn seri boo xam ne ay daggi saaga la ñuy def daggi saaga ci biir série nga seetaan am na fi bu doon jàll ci télé benn télé fii ñu koy set ñu koy teg ay góor jigéen ñoo ci nekk manière góor jigéen waxinu góor jigéen wiccaxu biiju ñoo ci nekk jàllul ci YouTube mais mu dem bay jàll ci télé lan moo tax ban intention lañu am ay góor jigéen du jouer benn théâtre immédiatement mu jàll ci télé bi dama ne ñun ñooy nelaw mais lobby yi nelawunu de ñi ngi liggéey te li ñuy liggéey caaxaanuñu xam nga bu demee ba Ibra italien def benn révélation bii mu def nii kay sa jabar jiite la ñu fay la alal ju dul jeex sa jabar jiite la julli mais noonu nga xamee ne noonu la ñuy toggee foyer diine ji bëgg a installé fii ak dix ci kanam Sénégal ñu installé imam bu jigéen bu taxaw di jiite mais dañ koy tàmbalee ñu banaliser ko ndax image yi bi ngay seetaan dafa am fu muy des ci sa bopp la nga doon ñaawlu di ko seetaan deux mille tey boo ko seetaanee deux mille vingt ñaawloo too mais bu njëkk kan moo xalaatoon di gis ci image ñuy filmer jigéen juy tux mais boo ko gisoon dar sa gémmiñ mais léegi da koy gis ci image yi du la déranger ndax yàgg nga ko gis noonu nga koy gisee ci télé bi du la déranger noonu ngay rombee ci mbedd mi jigéen juy tux du la déranger kan moo xalaatoon ne Sénégal da nga romb jigéen ju yor cigarette di tux te mi ngi am donte léeg doo gis nit ku ñuul ku ko ñeme mais yaa ngi gis nit ñu weex ñi ay jigéenu tubaab di ñemee jaar ci mbeddu Sénégal di tux te bu njëkk kenn ñemewu ko fi woon dafa am fuñ ko jëlee am ci ñuñ koy gis garaawatul tey bu dul nga jaar ci mbedd mi gis jigéen ju tux dangay dem ci yenn restaurant yi gis jigéen ju toog taal cigarette am di tux ñenn ñi yor seen i di tux mais fan lay dooree mi ngi doolee ci dooree ci série te série yooyu fan lay jàll ci télé yi yenn tele télé yi nga xam ne xaalis la ñuy ut ay sponsor boo gonewul yenn série yi duñ ñëw sponsoriser yenn euh, série yi alal ji ci dugg ay millions la pour nga gagner millions yooyu noon la faaw nga jàllale série yooyu noonu la léegi ñi nga xam ne ñoo bëgg a yàq àdduna bi ay milliards lañ yor teg ko ci taabal ji seen programme ku leen ko jàllaleel mais ñu jox la ci milliards yooyu moo tax dañuy banaliser lépp lu bonoon xam nga boo demee ba ci série jigéen mën a taxaw ñu baal ñu ci waxin wi takki fer ñu ne noon seri bi dafay jouer wu jëkkër ak jabar ñu wane ko mu taal cuuraay yàgg na fi loolu noonu la nekkul ci yu bees yi ñu wane ko mu mën a tëdd góor ci kaw lal ba nga xam ne li ci des xel a koy mottali ñu soog di dagg séquence boobu noonu li wane góor ak jigéen ci série ñu nekk di fóonanti mais lan la ñuy jàngalee xale bu ndaw bu wéet ak moromam am 10 ans mën nañu fóonante ndax ñi ngi toog 9 heures ci guddi 21 heures papaam yaayam di toog di seetaan ñuy fóonante te yow nga am ñàkk ñàkk conscience bu toll ni bàyyi sa doom muy seetaan lu mel noonu la yaa ngi moom ngeen koy seetaan seetaanandoo maa ngi rappelé bi ñu nekk Kaolack ci daara ji am na genn kër goo xam ne ci. kër yi amoon télé jamono yooyu kër yi am dañ koy wàññi da nga fa daan dem di seetaan télé taalibe rek bu demee yalwaani sob toog di seetaan mais am na benn genn góor kër gi kër mbokk ràbb yi la du ko fàtte mukk ci Ndorong ca Kaolack maa ngi rappelé wu jamono série yu njëkk yi nii dafay toog ak njabootam ñu koy seetaan bu ñu yegsee ci séquence buy wane ne góor ak jigéen dañuy bëgg a fóonante mu fay télé bi mu fay télé bi foofu la ñuy jaaree ñëpp dëri ñëpp tëri moom série ba jeex na mais inconvénient bi gis nga fay tele boobu sax moom mooy gën a garaawati ndax léegi kooku dana dem découvrir bu dee jamono ji njëkk la ma amoon jenn pexe mais jamono ji boo ko defee sa doom dana dem gëstu ji ca internet bu jàllul direct ci télé bi mu seetaan ko après am na possibilité dem YouTube pour seetaan ko fa lan moo tax sama papa fayoon télé bi nga xam ne kon dañ ñoo agressé ba noppi ndar nu kapp amuñu fu nu mën a jaar tey yow li ngay bañ ci sa kër ne sa doom du ko fi seetaan après internet bi mi ngi fi YouTube bi mi ngi fi jël nañ série dugal ko fa buy jàll ci télé bi matul deux minutes mi ngi ci YouTube bi nga dugg ci YouTube bi mën ko fa seetaan kon léegi lan moo waroon a nekk pexe du kat sama doom du seetaan lii mais ñi nga xam ne ñoom ñooy bind série yooyu noonu le acteurs yi koy joué ñu nekk ay nit ñu am jom am yoo xam ne ñu jomb koo jàllale xaalis du la ko jaral bëgg bës ko jaral ay nombre vie yuñ lay fay du la ko jaral mais nga ne man jullit laa dama am diine dama am bañum rus dañu am sunu culture lu may lu muy bañ kon du ma bind benn seri boo xam ne damay maye yenn yi mu ciy jàll mais fii la fi benn série di jàll ci tele ñu ciy tàmbalee wane ak franc-maçonnerie ak franc-maçonnerie pour wane ne kii kat li tax mu riche wala pour nga riche da ngay dugg ci lobby gis nga loolu noonu la du hasard amuñu benn gravité bi gravité euh, wala gratuite bu ñu defal euh, franc-maçon yi pour di leen jàllaleel yenn séquence yi lan lañ leen fay pour ñu jàllale séquence bi mu ngi mel ne woykat boobu soloon fi te seetu góor jigéen ñi dafa nekk gratuit non non non du gratuit waxul ba léegi ñaata lañ ko fay ci tiset yi jamono yi gis naa ko ñu naan mi ngi mayee oto ki jënd kër maye mayee kër ak ki jënd xarum tabaski waaw ah <laughs> waxaguñ ba léegi lan lañ ko fay di mbaadu lañ ko fayoon il faut que ñuy rappeler sénégalais yi ñenn ñi ak yenn yi nga xam ne dugg nañ ci woykat tel dafa baax mi ngi maye kër mi ngi jënd xarum tëbës koy kan koo xam ne ni yaa soloon ti setu góor jigéen yi àdduna bépp doon la mbamb gis nga noonu nga xamee ne la ñuy ci benn woykat boo xam ne mën na influencer ndax woykat boobu daf dafay influence am na influence ci ndaw ñi bu solee benn col ñu sol ko bu woyee benn woy ñu bëgg ko noonu nga xamee ne noonu la woykat boobu di doonee star dañoo gis ne série yi tamit di jàllale seeni message te message yëpp yoo xam ne ni lu yàq société bi la ba tax na kon nit ki bu fekkee am na mbañum ruus mbañum ruus c'est important am looy ruus am looy jomb lii sama ngor mayuma ko sama ngor bu njëkk nee naa da naan gis nit jël baaraamam jam ko fii ne fii deretu ma fii daw am na loo xam ne du ma ci dugg mukk waaye léegi bu demee ba nit jamatul baaraamam fii lu ko neex mu dugg xaalis rek xaalis rek bu demee ba bokk ci sër yi léegi même buñ la ci fayul xaalis nga ciy dugg ndax intérêt bi nga xam ne moo ci juddoo après surtout sunu sër yi sunu sër yee yeewu leen dara jaru ko fi. ñu ngeen di gis ñu naan ay star lañu bokk nañu ci sër yi pare lu nekk ñu gañee ko ci mais poson la ñuy lekk fii ak nangami at ci kanam danañ ko réccu ku ci nekk jigéen toll ci sëy mais demal nga uti góor gu baax nga ànd ak moom sëy te yàlla tax xaar résultat bi fii ak vingt ans fii ak trente ans fii ak résultat bi bu ñëwee doo ko réccu mais jël seen yaram yi xolli ko ba mel ne lu kenn xamul ngeen nekk ci écran yi xoolal léegi phénomène moom moo xew Sénégal jigéen ju xees rek la ñuy wane léegi ci écran yi réew moo xam ne nii réew nit ñu ñuul la ñuy wax ku ñuy jël pour ngay présenter benn émission ñu ne xeesalal kuñ ci jël nga nekk war a nekk ci série ñu ne xeesalal dañ koy choisir dañ koy tànn du hasard ñu ci bëri ñuy nekk ay ñuy présenter yenn émission yi ci télé yi dañoo xees ku ci loon boo xëyee ñu ne la xeesalal boo bokkee ci série balaa yàgg nga te ba nga tàmbaleegul série ba yaa nga ñuuloon mais loolu noonu le dafa am dañ leen di jaay pour utee leen xaalis dañ leen di jaay pour utee leen xaalis yow it nga yaakaar ne la nga cay gañee tey tey tey tey nii loolu euh, mën na la jëriñ dara pour suba non tey rek la lay jëriñ suba du la jëriñ dara li ngay perte moo ëpp li ngay gañee ci télé yi exposé wu wane sa yaram bët bu nekk xool la ak ñoo ñeme bët hmm. te ñi xam bët ak ñoo ragal bët bari na ay ñu nekkoon ñuy feeñ ci série théâtre démb ya ñu ci bëri laataa ñuy faatu yéene wuñ leen ko mais coono bu métti dund nañu ko feebar bu yàgg bu tëw wér yàllaa xam ak mbiram mais ku xam réalité écran yi di nga xam ne looloo ci gën a tuuti ndax yeneen bi dina al aynu xaqun bët dëgg la mas naa cee def émission boo xam ne loolu rek laa doon waxtaanee bët ak gravité yi nga xam ne moo ci nekk yeneen bi ne bari na ñu dugg bàmmeel sama xeet wi bëta leen fa dugal bëri na ñu dugg bàmmeel sama xeet wi yonent yàlla Muhammad ci hadis bu wér nee na bët moo fa dugal bëri na koo xam ne ñu ngi naan diw de léegi gisatuñ ko bokkatul ci sëriñ nangam fekk ma nga feebar ne laaj mënatul dara nekk ci coono yi ba xëy wuy ji boromam. mais boo boo demee ba tëdd ci lalu feebar ñu delloo si la say théâtre yoo doon def série yoo doon bokk lan yan rôle rôle nga doon joué théâtre ba lan la doon jàngale lu yàq diina ji lu yàq société bi ndax sa conscience dana tranquille ci sa lalu feebar nga war a dugg ci biir bàmmeel ëllëg taxaw ci kanamu yàlla mu war la àtte ci loolu nga xam ne moom nga doon joué ana xaalis buñ la ci fayoon ana siiw ga da ngeen di siiw bëgg na a siiw ñu fi nekkoon ana tey ña jiitu woon ci théâtre yi ana ma xoro jigéey ana Baye Pël ana Malick Ndiaye fara jal-jal ana ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci ñoo xam ne nii ñoo jiitu woon ci théâtre am na ñu ci am woy wu rafet nekkoon nañ ay comédien daan théâtre mais tey ñu leen nettalee lañ nga xam ne noonu lañ doon théâtre démb wala ñu teg ko seeni njaboot du ñu rus mais am na ci ñoo xam ne ñoom ci seen bopp seeni i théâtre fii deux ans cinq ans ci kanam bu ñu leen ko tegalee ñu rus ndax rôle yi nga xam ne joué nañ ko ci am na ci koy dund baay ili histoire dana nettali ba léegi mi ngi nettali rolam bu bon boobu mu joué woon ci bàyyi ili da koy tere ba léegi histoire mi ngi koy nettali te dana ko topp ba mu dugg bàmmeelam bu ko tuubul jéggalu ko ci kanamu sunu borom dana ko topp ba ci biir bàmmeelam Baay Ili da koy tele imam buy fecc imam buy nangam imam buy nangam ana Bas Jaxate ci sëriñ euh, xaw ma sëriñ nan nu mu tuddee woon euh, kiyam boobu noonu jël ay taalibe sëriñ banne sëriñ banne sëriñ banne Bas Jaxate dana ko topp moom it ba mu dugg bàmmeelam sëriñ daara nga jël ay xale ne ñoom ñooy yalwaan jël ay jigéen pare bu xale ñëwee nga dem jox jël jigéen ña neexalee leen ko yalwaan nga dem lii nga jëndee ji ko péemi sa taalibe ba jënd péemi bas jaxate loolu dana ko topp ba mu dugg bàmmeelam mais lu fi jar lu mel noonu li ngay tuddee Malick Ndiaye ne ah wax dëgg de daan na théâtre waaye nag mënuñ koo tuddal lu mel ne li Baye Ili def mënoo koo tuddal lu mel ne li Bas Jaxate def ñaar ñi li tax ma leen di tudd mooy ñi ngi dund ba léegi moo tax ma leen di tudd bu ñu faatoon dama ciy noppi joxe exemple rek bàyyi noonu li mais dama leen di tudd ndax ñi ngi dund ngir ñi nga xam ne ñoo ci tollu tey di ay ndaw ñu def tere attention ba yenn rôle yi bu leen ko kenn joué la naka la jigéen mënee ñàkk jom ba nekk di fóonante ci télé ñu koy filmer imagineel nga sëyi am jëkkër ami doom ñuy wane seen yaay muy fóonante ci écran xam ngeen réew mi ngeen nekk ñu wane sa yaay muy tux cigarette xam ngeen réew mi ngeen nekk xanaa parewu leen pour sëyi pour am doom ñàkk jom googu noonu le banalisation boobu ñu banaliser yu bon yi mais c'est très grave dafa mel ne du ngeen xalaat ëllëg àdduna yemul tey série yi dañ koy wane ci tele yi génne nañ ko télé tel télé tel série tel jàll na ci seen YouTube tel nangam nangam diwa ko produit mais ñi nekk ci ginnaaw série yi li tax ngeen war a yeewu yéen acteurs yi actrices yi mooy ñi bind euh, xaw nan lañ leen di tuddee ñiy bind série yi mais seen jabar joué wu ko seen i doom joué wu ko ñi ngi bàyyi seen jabar ca kër ga bàyyi seen i doom ca kër ga pourquoi yéen ñu ñëw loué leen loué leen ngeen leen di see joué lu mel noonu mais conséquence bi ci ñan lay këppwaat ñoom fee ñu ñu ñu ci bëri ñu yor seen i caméra nangam production nangam production ñoo génnee série tel série tel série tel mais ñooñu seen i doom fee ñuñ ci seen i jabar fee ñuñ ci xaalis la ñuy ut dileen leen ko utee yéen la ñuy exposé bët yi ci yéen lay tegu cikk gi ci yéen lay tegu bàkkaar bi ci yéen lay si yéen ñëpp lay këppu mais ci yéen la bàkkaar bu feeñ bi di affiché wu mais loolu du ngeen ci xalaat ngeen réfléchir ci xaalis boo xam ne buñ ana tey ña nekkoon théâtre katu démb ya tey bu dul ñi nga xam ne teel nañ ca yeew rocceeku dem liggéeyi tey koo ci gis ku nekkoon ci théâtre démb boo ko gisee tey yërëm ko ñenn ñi ñu ngi jéem a forcé di ñëw di bokklu ci yu bon yi xew tey te mbon gi weesu na leen ndax am na ñoom fu ñu toll foo xam ne nii ca démb tey mënuñoo wàccaat ci mbon gi ba fekk si mbon gi ni mu mel ñeneen a ñëw ak yeneen i façon mbon ñu jéem a ñëw di intégré wu ci ñooñu mais ñooñu nit ñi xewi nañ ci seeni bët ñi ñu xewal fii ak 10 ans dañuy xewi ñeneen ñëwaat mais ku ci yeewu da ngay xam li ngay joué lu mu doon mais ñàkk kerse gi franchement ak yu bon yi ngeen di jàllale ci foyer diine ji da ngeen ci gis koo xam ne message wu mbon ci diine lay jàllale diine maye na léegi la ma benn mbokk di wan Euh, benn seri boo xam ne ñu ngi ciy wax ne xam xamoo ne diine maye na nga takk ñett ñu bokk ndey ak baay séquence bi loolu lay wane diine maye na nga takk ñett ñu bokk ndey ak baay waaw am na fa ko diine de <laughs> loolu benn benn galgal la xaw ma lan lañ jublu ci loolu ndax séquence boobu rek laa ci laa ci jël diine maye na nga bokk ñett ñu takk ndey ak bokk ndey ak bu ñu bokkul dafa mel ne sax moom dafa wax ne nga bool leen ci benn buum bu bu ñu fekkantewul kee daa faatu wala da ngaa fase kale keneen nga takkaat kon diine mayee na ko noonu waaye lan lañ jublu ci loolu diine may na nga takk ñett ñu bokk ndey ak baay yu mel noonu ngay dégg ngay dégg ngay dégg ngay dégg yoo xam ne nii après dafa am lu muy jeexital ci société bi nangam ja kat nañ ko ca théâtre ba nangam ja kat nañ kon mën naa nekk nangam ja nangam ku gën a ñàkk bopp mooy kuy jàngee ci télé yi diineem ku ko gën a ñàkk bopp amul wax nañ ñàngam ca série ba ah man kat foofu lañ ko waxee jàpp ay série la ñuy jàngee seen diine foofu ngeen koy jàngee bàyyi fi daara yi bàyyi fi imaam yi bàyyi fi oustaz yi ngeen mën a dem jàng seen diine léegi ci écran yi ngeen di nekk ku ngeen gis mu wax rek ngeen ne wax na ko ci écran ba kon mbokk yi danañ ci dellusiwaat beneen yoon incha allahu taala dañu waxoon lii rek defoon lii ndax ki ñu doon invité dafa ñëwul ñu ne nañu fàttali waaw nañu fàttali ñu xam ne influence bu doy waar moo nekk ci série démb ca tubaab ya la woon tey nag ci nun la gis nga maam Cheikhul Hadji Abdoul Aziz Sy baax yàlla ñu ko yàlla fayal sunu seriñ bu baax bu yiw boobu nga xam ne Sénégal dootu ko fàtteeti mukk ci mbaax boo demee ci diwaanam ba da nga fa ay discours yoo xam ne dénoncé série yi doon daw ci jamonoom moo ca nekk di wane ne am na ay film am na ay film yuy daw ci télé yi yu yàq jikko te ba muy wax loolu la ci jamonoom boobu série yi nii xewagul luxe sexe vulgarité ci xawma lañ koy waxee ci tubaab et cetera et cetera nga tënk lépp rek mu nekk benn baat muy ñàkk kersa ñàkk kersa ñàkk jom am leen jom ñàkk jom baaxul te ñu ci bari dañoo ñàkk jom ñu nekk ci série yi nii dafa mel ne sax du ngeen di ay sénégalais am leen lu ngeen di ruus am lu ngeen di jomb am na koo xam ne askan wi nga bokk deret ji nga bokk ñu le dafa mel ne amul ñu leen xam ñoo xam ne sax war ngeen leen a ruus man Makhtar Sarr am na loo xam ne même bu ma ko bëggee def war naa xalaat ne ah am na ku ma xam ñoo koo xam ne de ca Ndaraama Escale bu ma seetaanee war naa ci am kers mais nag isaalam tusni irdan walam taxsha xaaliqan wa tastaxi maxluqan fa maa chita fasnai su fekkee de bañatoo ko jam tuuma ci sa der bi ragalatoo yàlla amatoo kersa lu la neex defal te leen loolu dong lay niru waaye am na yoo xam ne fi nga bokk ña nga bokkal xam ne yow yaa ngi joué loo xam ne su paree dana génn àdduna bépp di la seetaan mais da nga jomb joué loo xam ne boo pare nga daje kenn di sëgg te doo xam daal nit ñi fan lañ leen fore danga gis yenn série mbalit yoo xam ne nii ñàkk xorom dara jàngale wuñ ko tëb fii wadd wadd di mel ne mbote boobu noonu le doo comprendre ñu jël théâtre mais scénario moom dama leen jëlale sax ñoom moom daanaka jaratul sax muy am Sénégal yooyu ay sénéra kii nangam amuñu benn njëriñ nañ leen supprimer ndax bu njëkk yenn sénéra xaw ma ñenn ñoo ñoo ci nekkoon doon censuré naan lii nii war na jàll lii warta jàll mais léegi zéro ko jug rek ñu baal ñu golo gu jug rek léegi or def sa série mu jàll ci tele ñu toog di ko seetaan bu demee ba léegi ay organisme mooy ñooy jug ànd sàmm jikko yi Jamra naan ñi ngi porter plainte ci yenn série ndax wane nañ ci loo xam ne nii mërs dafa yàq jikko yi mais sa honte waaw dafa ruslu am na loo xam ne Jamra warul ko defa ki ànd sàmm jikko dafa am yoo xam ne nii ñoo leen teg pour ne leen yenn yi nga xam ne nii dafa dëppowul ak sunu réew niñ ko tabaxee mais bu jàllee ci télé ne leen bu mu jàll avertir leen télé bu koy jàllale mais télé bu nekk léegi mi ngi xëccoo seri bu gën a bon ku génne seri ba gën a ñàkk kersa gën a bon tàmbalee am bii ci YouTube bi télé yi dem jënd ko mu tàmbalee jàll. tey boo defee benn seri boo xam ne mi ngi jàngaleeg mbaax ak yiw ak aada réew mi sax du bëri bii télé ya kenn du ci intéressé wu. léegi après nag ñenn ñi naan noonu ñu dimbale waaw ndax seri yi euh, sénégalais yi li ñuy dund rek la ñuy wane mais est-ce que li ñuy dundu lu nekk dañ ko war a wane. du lu ñuy dundu lu nekk dañ koy wane am na lu ñuy dund loo xam ne lu bon la dañ ko war a combattre pour mu jóge fi bañ a siiw bañ a tasaaroo mais ay nit ñoo xam ne ay innocent ñenn ñi yeewuñu am na yenn yoo xam ne boo ko wanee ubbil nga leen benn buntu boobu ñu soobu ci. waaye waaw lu ñuy joué fii rek sénégalais yee koy dund yenn senegal da nga gis koo xam ne la ñuy dund benn quartier ci Ndakaaru la joué loolu concerné wul Sénégal ay nit ñu bon ñu nekk seen ruq def seen yu bon ñoom la concerné mais concerné wul Sénégal pour ngeen leen koy wan. jigéen juy tux ñu koy filmer di ko wane mais dafa concerné sénégalais da nga dem fële ne ci àll Kajoor ba àll Fuuta ba àll Jolof ba àll Bawol ba fekk jigéen bi ñemee gis yor cigarette te télé ya ma nga fa pourquoi nga mën a mën a bàyyi jigéen ñu asaru ñu nekk fii nii di tux nga mën ko wan jigéen jële nga xam ne mosul gis ci bëtam jigéen juy tux mais noonu la ñuy saytoo am réew di protéger ñenn ñi ci yenn yi mais réew moo xam ne daal Sénégal léegi dañu ŋaa ñebunu lu ñëw dugg su yàggee nag lu jur jàmm ŋaa da nga war a ŋaa mais da nga war a xëy ñepp mais Sénégal léegi dañu ŋaa comme ordinateur bu amul antivirus lu ñëw dugg lu ñëw dugg lu ñëw dugg ba tax na kon télé yi dimbalewaat leen nit ñi seen YouTube yi dimbalewaat leen nit ñi yéen ñiy bind série yi dimbalewaat leen nit ñi acteurs yi am leen jom ñàkk jom gi c'est turo yéen ñi ñàkk jom la rek wow bët ñàkk kersa waaye dana weex ci yéen xàtt de de Sénégal ngeen nekk de yenn rôle yu bon yi ku ko fi joué maa la ko wax balaa ngaa dee da ko réccu bu ci kenn nax damay wax ni pour alerter mais am na du hasard yenn yi ku ci jaar bala nga dee danañ la yërëm wala nga xëy rek dee suñ borom jëflanteeg yow mais am na yenn yoo xam ne nii ku ko mm, ñeme sax war ko rus ba tax na am leen lu di rus am ngeen lu ngeen di jombooy seri yi bari na bon na yi bari na bon na bari na bon na doy na sëkk nag defu leen ay série jàngale réew mi nan lay développé ci mbay ci sàmm ci nappu ci dara mais seri bu nekk wane ak ceg euh, ci ak sexe góor ak jigéen nan lañ mën a nekkee farwa xolal ëmbal na ko ëmbal da nga yéemu ci Sénégal série ba ëmbal na ko bi mu ko ëmbalee sama ëmb bi bi ma defee nangam dafa yàq ëmb bi léegi yàq na ëmb ba diwa ko ëmbal bim mu nangamee dafa nekk ci buum ñu ëmbal ko ca papa moo ko nangam franchement franchement doo comprendre da waaye nag duñu noppi danañ wax fàttali leen ngeen ngeen bàyyi xel waaw ngeen bàyyi xel lu ko mooy ah li ciy xay ci seen kaw rek lay këpp waaw ah, li ciy xay ci seen kaw rek lay këpp ba tax na dinañ ci dellusiwaat ci yeneen jëmmi jamono di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi seen mbokk Makhtar Sarr la woon ci aaxiru zaman ba beneen jataay ci aaxiru zaman incha allahu taala wa salaam